dañuy politique nun nous sun mouvement bi politiqueul waye lu ci fu deug dik dal ko nango wax te fekk duñu am fu kon lolu nekk na maintenir. xamantene fi nga crise scolaire yi ñi amé maintenir. ño xamantene ngi fi ay anciens inspecteurs lañu amna fi anciens préfets lañu ngi ci mi fi ay ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne branche yooyu bu ñu leen boolee bu ñu toogee ñu jox nu point dana lu xalaat loo xamante ne dana avancé réew mi waaye buñ ñu bàyyi du ñu seet ba ñu xëy gasal nu baax dugal nu ci biir ak suñu xam-xam du am benn njëriñ ci réew mi du am benn njëriñ ci ñi nga ñoo fi topp suñu gannaaw. retraité yi bu xamante ne mi ngi jóge ci IPRES ak retraité boo xamante ne mi ngi jóge ci fonction publique ñooñu ñoo dajaloo ñu moo fédération euh, des associations des personnes âgées loolu. mooy Far Pass Nous avons organisé organiser depuis des années léegi le gouvernement a nag des lettres immédiates. Tout le monde mënut a wax ak ñëpp danaa contrôler ma mettre ko à la disposition du ministère de la santé et de l'action sociale moom moo parrainer. parrainé moom ñu organiser di ñu di préparer journée nationale journée internationale pendant des années léegi nag ñooñu ci gisul seen bopp ñoo bind lettres ah comme nous, ñun ñëpp nag du ñu bàyyi association rek bo xamante dafa yor bopam mom bopam am autonomie muy def lo xamante ñoo ñooñu ñëpp bokkuñu ci dak ñun nak nañu rassembler ñëpp lolu mo indi suñu indi li ñu diko def nak ba ñoom ci seen bu ñu organiser nu au niveau départemental au niveau régional et au niveau national bon à peu près lolu ñun xam nga li ñu mën xam moy service statistique li mu jox il y a 800 000 pères de famille. Comme il l'a si bien dit dans son rapport, 9% de la population. 800 000 personnes âgées, c'est les chefs de famille, bien identifiés. Et la grande majorité se trouve à Dakar.